الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وخير خليله محمد وسلم بوك جولي دي غنا بن نيو غن بي نيو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي دار الله سن بوك تالبي دي نزيار دي نيان يالا مومي درتو شيخ محمد المنتقى ابن شيخ محمد البشير ليغا خامي موي سن جوا جامونو دي تي كوسو سن بوروم غن كفي ياغال مو غن في ياغ لول تا غن بي نيانال بيب خالفه غني تي يونو مولاي noonu nag la ñuy toftalee ñaan bi képp ki nga xam ni solo nga sa daal jëmale ko ci diine lislaam ñu ngi leen fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak talibi TV ak seen xarit Thioune Bëgg Bamba ci nee naa leen lu bees tax la leen indi muy safar ak tey nag macha allah bu ngeen gisee jotaay bi di ngeen xam ni safar ak Serigne Fallou jàppandal Serigne Fallou ñu ngi leen di ziyaara baad auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim qaala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli قلبت كل لكريم وبخا تبيخ إكرام وقلت بخبخا سدد لساني نبي الجناني صفي أمان وسد برأي بركة برم جماج شيخ إبراهيم مفعل وعليكم السلام ورحمة الله تون بق بامبر نون لي سيار دل دخ سوات شوية عندي تامبلي سنوك سيار سنيا كارو تيك لك برم بدر بي دكون يانا الأكوب يا جدوير دكون يانا المبالم كونغان كل الإسلام تي murit xaadir tijaan layen baa fu mu mën a tënku rek hmm. ñoo ngi lay jox wàccuwaay yi la yàlla jox te di ñaanal sëñ Muntaqa al Basiru yal na sax ci mbégam gi tamu sax fii dàkk te bañ fee jóg ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp waaleykum salaam wa rahmatullah waaw macha allah sëñ Fallu ñu dugg ci weeru safar nga hmm. tax na ñu indi ci émission boo xam ni safar ak hmm. léegi nag xëy na dañuy waxtaanee saxaar gi ba noppi après waxtaanee ak ki ki ñu war a waxtaan léegi safar sëñ ñu bëri dañuy dégg weeru safar waaye ñoom des nañu comprendre lan mooy safar. Mhm. ndax am na sax ñuy dégg safar Nous xam ne sax safar xëy na mhm. léegi lan mooy safar ci boppam. waaw safar ci boppam weer wi ci boppam moo tudd safar. weer wi. Mhm. gis nga li ñuy wax janvier février. Hmm. mars avril noonu la amee safar am muharram am ay kabir. noonu mm-hmm. weer wi moo yamook safar li waral nag safar mm-hmm. euh, gën ci weer yi ginnaaw weeru gàmmu euh, borom safar gee ko waral borom safar bi muy Ahmadu xam nga daa am mbër moo xamante ni waxtu wu dugg see bàkku donte kon bëriwul mm-hmm. combat ba neex dëgg la la tax ñu koy indi mu bàkku si donte kon bëriwul fay ko cachet léeg-léeg bu ëpp sax cachet kii bëre na mu toll la tax ci histoire wa borom safar gi ni mu toll uh-huh. ci safar uh-huh. yim ci garmbaasu yëpp ci biir weeru safar uh-huh. moo waral bun ne safar rek xel yëpp dem ci sëñ Tuubaa bun ne gàmmu rek xel yëpp dem ci yonent bi alayhi salaam waaye tax bun ne sawar rek xel yëpp dem ci sëriñ Tuubaa la ko waral nag xëy na bu waxtaan bi doxalee ba nga yegg ca danaa la leeral la waral bu ne safar tudd ko dëgg la léegi macha allah bu safar di weer yi nga xam ni weeru wolof la te sëñ Tuubaa indiwu ko te bu nee safar xel yëpp dem ci moom léegi ñu gis ni xëy na weeru safar gi la sëñ Tuubaa jàpp ni moom mooy màggalam mhm. léegi lan moo waral tamit màggal gi lan moo waral màggal gi ndax it yaakaar naa safar màggal gi ci la ne te li ci màggal gi nekk tax ñu mu ràññali ko waaw kay xaa yaa ngi ci ko dégg séeréer daa mel ni nag mhm. yaa ngi soogee laaj li nga bëgg laaj ndax dama lay bañ a jiitu ci lenn bi dëgg la du daa mel ni Serigne Touba déedéet weer wi moom moo ko moomle boppam woote ci ni ñëw leen ngeen santale ma yàlla dëgg la léegi pour mu wax la li waral ñu war koo santale yàlla nag moom moo ko bindal boppam sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian lil qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi li waral mu moom weer wii hmm. ak weneen weer wudul moom waaye wii da cee gën a fës hmm. moo ni sababu xaybati an allaha hmm. nee sababu tukkeem bii nga xamante ni maanaam moo ko may lépp lu mu am tukki sababu dem gi nga xamante ni moom la Sëñ Tuubaa demoon liggéeyal ji bi ci beneen façon ci beneen planète sababu dem gi nga xamante ni moo nu tax a ñun raw keneen ku dul moom moo la tax a gën keneen ku dul ku bokk ci sëñ Tuubaa hmm. boo liggéey yomal xiyaamatal akbar benn ndam moo am benn bàkku moo am sëñ Tuubaa koy bàkku yomal xiyaam darajey Cheikh Ibrahima Fall alxuraan moo ne li ma nil mulkul yawma lillahi alwaahidil qahhaar hmm. sunu borom bu ëllëgee bu tëree yam war a tër yëpp ba ñëpp dekkiwaat dana laajte kan mooy seen buur du joxañaat ko ni ko lillahi alwaahidil qahhaar sëñ Tuubaa ak a yàlla du yàgg du du yàlla waaye ku nduróog yàlla yëf la moom sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa te yéen du yàlla waaye ku nuróog yàlla yëf la hmm. te naka nun nuróoyee ñoom ñoom sababu tukkeem bii hmm. dañ la ciy indil épreuve yoo xamante ni du nit du jinne te du malaayka ni ko sëñ Musaa waxee nee na du kaayi naati waaye du Musaa Ka hmm. euh, sëñ Musaa Ka dafa waxte way wa daat ni yan wanu yenoon xut bi ya ak ab daal ya te attanuñ ko سن بام باكا فاب راو غاجا دنجن دي وي تتواتو البلايا سورة الأعوان اللي أمتي الآن سورة الأعوان بقول لك ده خمجة موي بنصار موي بنصار سورة البقرة بقرة موي لهواني سار دون كو قدو القرآن نطوي فال نون لانتك سن موني سن سنا قس لنو بام باي كامل مر يب سخ لنو بام باي كامل من شك في سالك فليجربي ومن يجربي باب التقربي سن بام بجانتنا يالا تضوط بخاتي rijaal yi ñoo seede li ma sa kàcc nee na sababu tukkeem bii sababu xaybati an allaha sababu génn gi ma war a génn mhm. li ngay xamee ni sëñ Tuubaa du nit mhm. suñu décidé war a def émission man ak Thione Bëgg Bamba mhm. mënoo génn te këfoo sa caméra préparé woo loo war a sol waaw loolu daal sëñ daa julli fajar ba wàcc génn ci jàkkam di tedd jooju ndigal yàlla daal ci kawam xamal ko ni araamal nga sa biir kër nga war a dem te xam natt war na mu toll duggoo sa kër saafoon teg sa njaboot duggoo ci sa biir kër tàggoo teg sa njaboot duggoo defar say bagage daa dog yoon wi dem ci noonu Cerno Ibra Faati ndaamal daaru bay aw balla moo aw balla ko dab ak fas wu tudd awlullahi foofu nga xam ne kii jéggi na nit ñi Sëñ Tuubaa li mu ni jaawatu naas jéggi naa nit ñi foofu lay tàmbalee nga xam ne du nit daa nuróom nit ñi rek aw melo moom Bendigal gata ga tabbe mu ni dootul Sen këram. sëñ Tuubaa du du du du fon yi di xaar pour taw bi sebet wet ñu julli ji. mom sëñ touba sëñ Moussa Ka neena na musta tiit ba faat waxtu la ko koy wax raw montar ta moy boromam. du yox yoxi ngir ak ragal. Mm-hmm. du regal nak pexem ni day musa mu sukkandikook dooley boromam. tey bokul ak gañi la xew ba mom safar hmm. tambali gi nga xamé ni jambar ndax ab le, bu jubee te daanuwul ba jiitoo jub loolu lu wér na dog yoon wi borom daaru dab ko mu denk ko yam koy denk denk ko njabot gi personnalisme Serigne Touba fa la ko njabot gi nanu jang ta nanu sul mu lay jang nanu yaru Cerno rek way bul tit bul yox yox hmm. oh xanaa moom moom miy tukki wax andal ak sa ngor damay dem liggéey ji suma ma yeen yéen ñëpp ngeen dem moo tax suñ fàllu ca xorma ga daan wax suñ bàyyi ceerno jàngal nañu ba ni ar waaye yar nañu ba ni nërëm xëy na benn yoon bu ñu dajee dana waxtaan lu jëm ci yar hmm. ak li suñ ci bàyyi indi yëpp dog hmm. wuti yoon wi hmm. tisbar gi sëriñ tubaa dajanteeg noonu yàlla yi ci jéewal rek doyen na sukk ab histoire ñu koy jàngale fii ba nuy wal bultu bi duñu gis ku mel ni sëriñ tubaa moy tisbaaru tisbaru jewal ga tisbaru jewal rek waxuma la digeunte geej gi bureau ndar yep da nañ ci yegg waaye tisbaru jewal gi touba dajante ak non yi nga xam tane touba bi dafa yeb la won pour ñu jëli ju ko mun ko fa fekke dafa ni won bu len ko fa fekke talen dekk ba ñu fekk fan touba ki mbàkke mun ko fekkee kadior kajoor uh-huh. buñ koy jël si mm-hmm. nan tal dekk bi buñ fa ba kenn fekk na mom jot na digal yalla ba wara wuy si ndax convocation yu bari ñewon na te sëriñ bi mënta wuyu ji ndax moom yàlla koy convoqué mu mën a jóg waaye du ab tubaab nit ñi li ñu bàyyiwul xel mooy sëñ Tuubaa dafa teel a lancé message avant muy dox mission moom message waaw ni la daa bind message tatatatat lil mustawa nawaytu maa yu jaddidu sëñ Tuubaa mu jaddid la boo dee dégg mu jaddid mooy mooy un guerrier benn révélateur gladiateur <laughs> wax naa ko barki démb gars yi ne leen nan d'accord ni il est le meilleur mais nanguwuñ ko d'accord Surtout, il est le meilleur. Si vous cherchez l'homme parfait, mm. Fatma, Moudjabib di mooy Serigne Touba complet gi nekk Serigne Touba yamul yamul ak kenn moo tax rakam di tedd ju ñuy wax sëñ Cheikh Thioro Mbacké nee na ko fa sut da dan fii jamiil jiili xat fa la jaa mboolem gaa yi yónni seen morom sut nga leen fa sut da dan fii jamiil jiili ci mboolem ñu daa fóon xat fa la jaa kawe nga leen tisbaar bi mu dajante gaa yi ci jawwal mm-hmm. ñu ñëwoon di ko jël si fekk na génn na jot ndigalu yàlla gi ca suba war fasam ba dajante ñoom ci tisbaaru jéewal jooju fa la njëkk daanee seytaane jéew min al xaqi jaa al xaqu mm-hmm. lil xaqi mm-hmm. fii sabin waaye bi xaqin mubiin laa yuanihi min sabin nee na min xaqi dëgg gi jot na tukki na ca yàlla mi aji dëgg nee na jaa at dikk na al xaqu dëgg dëgg gi dikk mooy kan sëñ Tuubaa dafa wax ñeenti xaq te nag min al xaq tukkee na ci yàlla mi aji dëgg jaa a dikk na al xaqu dëgg dëgg boobu xam kan la jibril alayhi salaam la yàlla yabal moo waxante ak sëñ Tuubaa nee na lil xaqi ñeel aji dëgg gi bu ñu waxee kuy dëgg rek nee na yonente bi alayhi salaam fii sax bin nee na ci lu leer lu voyant lan moo leer mu ne xaq gi ma doon bi xaqin mu biinin jot gi ma jot war a lu yàlla ci liggéey gu gu gu leer. Hmm. te nee na laa am ni min saa bi du ma yokkot loo kon xam nga ne waa ji du daw. dégg ba mu sànnee deret bi ci géej gi rek doyoon na dëpp njàmbaara tax mu delluwaat ci biir woto wi hmm. jéewal la la daane seytaane. kon moom xanaa jéewal mënoon na dëpp. jéewal rek fa la mbir ya waroon a yem waaye kon su boobaa dañ naan dafa daw wala fii la mbir yam son la né ana sa modou Touré da nga nan ma nga ca banjagara deug la. Lat nga feneen ak feneen kenen ak kenen ak feneen. Ahmadou rek ka dem ci mission bi ba mu mat sëkk dellusiwaat ci biir njabotam mom kep tisbaru yewal joju yamul ak tisbaru ndar gi. ah dafa am tisbaaru jéewal am tisbaru ndar. tisbaru ndar gi lañu convoqué won 84 marabu yi seigne touba mënta wuy gi 10 heures toog fa ba tisbaar fekk fa te du julli waxtu yàlla wi. dëgg sëñ Tuubaa daa julli tisbaar ba noppi soog a. sëñ Ka nee na Ahmed Khouraychine la fanaan ngir la mu callaloo ca neen Khouraychine xam nga ndar ma nga foofu ci sundooni dëgg la. bi mu ñëwee fekk na ñu faagaagal ñett. ñu dër leen. sëñ Moussa Ka nee na tubaab yi amoon nañu ay rey yoo xam nañ ci fa xar nga fay ba Touba. sëñ Touba bokkul won ci quatrième position yi. ñu ni numéro 4. geneen njàmbaaram li tax mu numéro 4 numéro lay wax Serigne Touba. Mhm. bu xaram ram bi jeex. Touba bi wuy mhm. dafa dem par anticipation. dafa dagg rang wa dafa dagg numéro dafa anticiper bu demoon par participation numéro jeexal ci na tuwab bi demoon na boo ne bu ñaanee intervention ñu baal ko ko magi ndari yi dajaloo yónni suñ amoon njaay maa bi jël xaalis ñu neexalee ko tubaab bi ngir ñu bàyyi sëñ tuba sëñ tuba tontu leen tontu mi tedd yooyu yëkkati xasida ak asiru jox ko amoon njaay maa bi ni ko yaa may seere li fekk may dem doo fi faatu tey yàlla moom demagul man sëñ tuba daal jaaxal na ma yow di dem di assurer faatu sa ginnaaw xanaa kii dem ni rafiqi kitaabullahi wal mustawa nabi wa ashabahu fi lbahri xiina aduroo mën ñëpp muy la bi may dem maa ngi ànd ak téere yàlla bi rafiqi yi ngi dem ànd nag bi mm-hmm. wal mustawa nabi ak sangu-sang yi wa asxaabahu ak saxaaba ya xeexoon badar fil bahri ci biir géej gi xiina adoor waxtu ba may wëndeelu ji ku lu yóbbu dëra sànku ji nga naan da ngay wëndeelu ji Sun <laughs> baram eh. lahum majaalu nii lu wanaal waxtaan naa suñu borom sax dafa dafa laay biir gaa ni bu ngeen fil ard fantasiru fil ard وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سنتو الله لون ديف ديف وردي وون سوفسي توبا بي دانو جاب ني ньо ييب سنتو با غير ما كو خامن ني موم اوتيل لون وون بو ورا ييب سنتو با نخ بوبي امو موين ييكو ورا ييب بوم ورا ييغ ميسيون بوب سون بوروم لومو نام داي ديف بخي mu nekkoon ci pexe sëñ tubaa rek la lu koy yóbbu ci diggante jeewal lambar nag maa yomba xanaa du fas lay dawal ba foofa faw sëñ touba def pexé bi ngay bëgg ñëw fi nga jël auto auto bi la fi indi. deug la mais auto bi momul saw yoon. dëgg la jàpp na ni nak mom mo la indi ba ci biir kër gi te xamul yow yaa fi indi ba nopi fay ko mu def dafa anticiper. deug lool da joggi anticiper. Hmm. anticiper war waxante ki nga wara waxantel kabar julli ñent ñaari rakka jàng Baqara ak Ali ibrahim sari gëna gudd ci gesu dat ni ana ci pour nga xamé waji da ji daa da ndurok yalla yef lani téré yep ba ñëpp ku nekk jot ci ba tey ni so soo fanuy atté do sol doo sol sa ñu wuy sa téléphone doo kaalawu te ta gaay ya fa demone ñëpp dañu tekki won seen kala mom ahmad rek a kaalawu woon ban né non dindi kala señ tuba gi buñ ko wéngalé jëm jor sal bi day wéng jëm jor suñ ko wéngalé jëm chamoñ sal bi wéng jëm chamoñ tuba bi mo ni balen ko kon ki mbiram yaang ci bop bi boobu ñu jàpp ni ba mu ne ku ma soxla ci yéen ah, kilifa gu mag gi tiit na ba yàq tubeem moo tax bi mu ne ana mu dabbirul umur man maay yàlla ju gën a kawe maay borom la suñ tubaab dafa nekk kasabta mu dammurul umur xayun laa yamut fen du dee ñu mel na jamono ji ngeen di procureur fen nga de waaw mun ko la ko wax kasabta la ko wax mu dabbirul laa yamut te yow sax sa dund gi lañ des bu deetul da ngay gaaw da ngay a faatu la ca xew xew ca sëriñ bi dem ci diggante lambar naag maa yomba ci hmm. tënk hmm. ndax ngàntal ñu libéré ña ca des ñenn ñu ñu daaj ci kees dugal leen yóbbu biir géej tëmbal leen ñenn ñu ñu neexal leen jox leen warga ak suukar ak mbàjj ñu dellu moom la ko wax ni ko yan wanu yenoon xut bu yàgg ab daar yata attanuñ ko yaa ko fab raw gaaña ki def li ñepp def day yam ak ñepp fi ñu yam deug ku bëgg raw da ngay def lan naan li jafe na ba yegg ci lool. te mom la def señ tuba lool la def. mo tax señ musa Ka ne ko famu dem ba am li mu am ko fa dem li nga am li nga am Cheikh Samba jaara wax loolu sax ne ko fi mu dem ba am li mu am. ku fa hmm. dem di nga am li mu am xaw ma ko am tu dem ta dul doomi maam Diarra. ya tontu laaw ahad toftal ca samat lam yële dooram yural kenn doomi maam jaara ahmadu ya tukki won bi nga ñibbisee lan wat gërëm nañu Cheikh Ibrahima min won Bamba doomi maam jaara sha allah gis nga mhm. géej gi mhm. nga xamanteni manam ci teunk rek comme waxtu wi dafa bariwul mhm. dañuy garbaasu lu bari rek bi serigne bi wara tabbi ci géej gi ba tàggoonteeg mbokk yi amna ñu doon jang kaamil diko sotti ci géej gi nit sëñ Tuubaa bañ a dellu si ngir mu baña a te xamul ni mom bi muy dem daa yóbbaale secret alxuraan daa rocc ruu gi ba fi jëmm ji moo tax mun leen dafa yëkkati kitaabullahi bi may dem damaa yóbbaale téere yàlla bi abiyaas ba la fa bàyyi ngeen nekk fii di jàng ak nangam ak sàngam pour wan la ni bisa lu bon yàgg naa am ni la bi gën ay la ni la bi ko weddi yàllaa ko xas ci alxuraan tabbat yada abi lahab abu lahab lu mu bokk ak abdallah mi bàyyi yonent bi benn waaye jur abdul yi ba leen jur kon noonu yàgg na fi mhm. sëñ Moussa Ka nee na tubaab bi amoon na nanu reyin yoo xamante ni rey nañ ci kuréel te ba ca teewee yow xar nga fay baax ba jibi tubaab tubaab bi amoon na nu xeer woo xamante ni ku ñu jàpp teg ca kaw jinne xeer la daal di lay fàdd ndegam doo sëriñ tubaab amul ku nu royoon ca maa yombe mbaa ca réew yi Gabon ca ñan demoon sànki foofu ndegam doo Sëriñ Tuubaa moom rek a dem cig sago hmm. dellu si waat cig ngor léegi euh, sëñ Fallou macha allah ndax saxar gi màggal gi man sëñ Tuubaa bi avant muy dem la woote màggal gi ni dañuy màggal wala ba mu dellu see la woote màggal maanaam dama lay indil jaloore rek ji war ñu war a jubile ah, maanaam sëñ Tuubaa bàkku na laata muy dem avant muy dem loolu mbër mu wóolu boppam ma koy def su daanee du doon jombe ci moom bu nu yeewoo suba may aw aw feet nag fan si club yi ñoo ci des ñun ñun murid yi <laughs> maa ngi dégg sax ñu ci def publication ba xorom naan sëriñ muri yi danoo bëri événement na waaw seen sëriñ daan fépp dëgg la dama leen nettali li waral mm. mbir yi mm. ba tax maanaam feet wu toll nii war a am dëgg la yegg wiir wiir hmm. jommal leen hmm. kanko yoroog nàmba yoro kalira ko ndongom ya gaa yi daal di jébbalu ci tënk rek li ma la wax sànq ne la ku yàlla ay yëf la hmm. pexe mu nekk tubaab yi reyee nañ ko sëriñ Tuubaa te faatuwul pexe mu ne maa la wax li gas nañu kàmb ba mu xóot def ci lépp luy lu bon laal ci sijaada bu rafet teg ci kaamil alxuraan ni ko fële de fu neex a yàlla la sëñ Tuubaa bit ci loolu waaxu ñaadam ñaadam dem toog ni suruf ni maasale bi ñëwee fekk ko tefes gi moo tax laata mu fiy jógee leeralaat na mbir yi bind xas gu naan xaatimatu munaajaati moom la mujj bind daani lam tan xun yi muqaddamatul mawti wa qad rafaqtu bil baqaa'i sawti loolu sax am na lu ko gën a neex maa xamama tan xat naxaa nufuusa wala si waaye saaqahu tan fii sa prémice bi yëgle dee ñu naan diw mi ngi ci sukuraat du ma jege man sëñ Tuubaa daan ne mootu la si na kaa ba duuni badalu min mawti nafsi ma naxaani jadalu deewu gaa yi nga xamante ni ñoo doon léew toog man ngir bëgg maa ren bi seen dee yooyu la suñ tuba suñu borom rafatale sama dee gi du ma ko fiy jóge ba noppi nag lii ma wax nii wallahu ala ma naqul wakil yàlla rek laa koy seereloo ci biir waay wa mu ni kullu nafsin zaiqatil mawti ila siwai nafsi bakkan bu ñam dund da ñam dee suuf bii kooku nduru nag yàlla yëf dëgg la ku ko weddi da nga xam ni yàlla maanaam da nga umpale yàlla ndax yàlla moo moo joxlewul dara. dëgg la lépp ngi fi yàlla. Mm-hmm. yàlla nekk fépp te lépp ngi fi yàlla. Mm-hmm. léegi nag sa xol bu bon bu mu la bu mu la mën a conduire ba nga ni li ñuy wax ni c'est trop fanatique kenn koy waxal moo ko bind teg ko fi soo nangoo ni nitu yàlla la rek nangul keneen nitu yàlla la simple bu fekkee da nga ko jàppee yow suñu tubaab simple nitu yàlla sax. Mm-hmm. maanaam mu bind ba fi war nga xam nitu yàlla yebul yàlla boo bind ba fi. gaa yi fi jaar seen i jaloore mm. histoire ko nettali mm. Ahmadu moo bindal boppam dëgg la mag mu bind ci ndox mu tooy ak ku bind ci bon bu tooy yamunu ki bind ci bon bu tooy téeméer at ku ñëw fekk dëgg la waaye ndox booy tegg say loxo muy faam dëgg la kun ko tëkkalee danoo jëlu siraat rek gàcc ko ci kaw jahannama li nga xam ne sëñ Tuubaa du moromu ku yàlla bind gaa yi nee na nattu yi juróom-ñaari atu géej la du juróom-ñaar sëñ Tuubaa ne 33 ans lan ma teg ay épreuve dama ci xaatimatul munaajaat نين لي ببيعة الثلاثة والثلاثين والضمائرة نين لي يلنما الضمائر أين نكتو ببيعة الثلاثة كي دي قنتي الثلاثة والثلاثين ترام تروازان نتاك مكو أين نكتو إيه. نين لي ما يحنا قوة شهيد الملاك الأعلى ما كو يسير الملاك يتعدي تي الله عمتا نيو نكسا ما يمبغ كون كو تكل الدوكي لي بو بو زارتيتير نيتو كاسي نيتو كاسي رك ني ديف نيت سامبل نغا كوكو جابي نيت سامبل da nga nekk ci lu la neex wala manam li alxuraan bu ko mun umyun fahum la yarjuun dala dal hmm. Sëñ tuba du nit ordinaire yow mosul yek ni yalla bu namé dara sañ na sak ci yalla di mu def loola yalla bu yalla bu namé dara uh-huh. ci yàllam di la koy sak mu def loola Macky Sall rew mi rek la yilif deug la bu namon tay ji ñu bombarder Ndar kenn fa fanaan la te rub àdduna rek la yor hmm président États-Unis fi tolli bu len bëggon faaga dal faagaagal ngeen fanal ci jamm deug te ci at ma rek. deug la yalla su namé dara daf koy sak ci bir yalla ji mu dem defal ko lolu ci yàllam delu wat ci yalla ji te du ci yalla ji dara su yalla ne ki la ngari du ki dana la kii on opini la ki la te do bañ ni ki la te gaay dama bañ ni serigne bi la. ku ko ci bañ suñu borom dana la kii ba nga xamni ki la. problème bi nak fofu la tambalé lii lépp ku ko def tey nit ordinaire li mbir yi di metti yëpp. Mhm. naa la ci nettali benn boo xamante ni fii la xewee fii Ndakaar. fii ci te xam ne Sëñ Tuubaa nee na waxtu wu ma ko xalaatee bëgg jëlaat jaasi songu noonu yi. Cheikh Abdou na ko ay yoon yoon. Sëñ Tuubaa na bi muy wàcc Ndakaaru. Mhm. tàkkusaan gi muy wàcc Ndakaaru koor la fi wàccaale. nit bi nu dugal Sëriñ Tuubaa ciw xat. Mhm. sëñ tubaa ni mu tuutee ci saayir hmm. nek bi sëñ tubaa xadi te dañ ko cee forcer bës ko dañ ko bës ba ràbb bi dem tankam ba mu fël ak la fa nek ci xéti xeet gu bon ci mag mu yëndok koor comme doonoon sa bay da ko nangu ku ni metti wul da dul sëñ tubaa da dul sa bay wala da nga yëgul dara ci yoonu yalla way ku yalla jaral ñu nekkal la fi sëñ tubaa jaar yëpp so goree wara bëgg sëñ tubaa bëgg sëñ tubaa ibadat la ni ni yeewoo suba di di julli ko woor ko natt asaka ak nangam sangam non la waré kep kuy der bu ñuul bëgg señ tuba obligation la dafa manam ñepp ko wara def par force la yow señ bi ki yor sa dépense ak da koy wagar deug la ki yor sa ngeul héberger la ci kërëm rek amna ciir bokoy jox deug la légui ki ni malaka ni dunya ukhra samadu nga ne doog ko waggar te fi nga nek moko mom fa ngay jëmit mom nga fay fekk lu dox ci digënté bi moma wàcc ci waaxu Moussa Siri nii la yóbbu woon yëpp def la lii ñu la def cig métti bi mu taxawee fii ci waaxu Moussa Siri dafa ne afawtu anil aada i turan li wajhi man ak nduróog yàlla moo le seen dafa am li xëy de sarmadan la sa adfaaw dana ndur woon ñu may sànki rek waaye ñoom mënuñu ci man dara léegi ki nga jàppee ko un benn benn benn benn simple homme personnel ay doomam sax jéggi nañu nit koo xamante ni nee na juróom benn weer yi maa ngi koy jaamoo yàlla tagg ko yonent bi juróom benn yoo ci des ma taggee ko yonent bi jaamoo ko yàlla doy na sëkk bul ko gëm bul ko nangul lii yëpp ma la wax laajal sa ñoom maam ñi xam taarix te jàng li leen ponkal yi fi nekkoon dar sëñ Tuubaa ndax am na kenn koo xamante ne rek como la. dëgg la sëñ Mbàkke Buso rek mi nga xamante ni mooy nijaay sëñ Tuubaa nga xamante ni maanaam na mu tolloon ci alxuraan. Hmm. na mu tolloon ci xam-xam. Alaaji Maalik nee na moom bu gëm doon sëñ Tuubaa ndax li yàlla def Mbàkke Buso mi koy raamal rek war a tax mu nangul ko. nga dégg ku naan la man sama maam wali yu la ak nangama sàngam suñ Aliou Seck wànnaar ba muy jëbal suñ Tuubaa wali yu kaamil la c'est Aliou Seck waaw suñ Tuubaa ko wax Aliou Seck mun wali yu Seck mun wali yu sëkk jëbal boppam suñ Tuubaa sëñ waa daan sugu bi muy jëbal boppam suñ Tuubaa booba suñ Tuubaa gane seegul àdduna sëñ jéeri mu tuddee ko fukki bamba ak ñaar te suñ jooy ñëw ñëwagul nga kan la mun sabab sëriñ la te bu ñëwee dana dem ci géej ponkal la won ah bi muy jébul ci sëriñ Tuubaa dafa ni leen uh-huh. ngi dem joxe sama bopp yooyu histoire sax dafi xaj dëgg la ponkal yi dunu dunu ñii mayee na nu ne jëfee na nu ne moom sëriñ waaw parce que dem am na ku ko laaj man ko sunu boroom lan la lan la ko yonent bi defal ba gën ñëpp. sallallahu alayhi wa sallam dara. te sëñ Tuubaa da koo jaayante. ñaanu ko te terewu ko wax ni man min daalub yonent bi laa. ana abdullahi wa xaddimi rasulillah. Hmm. yamu ca de mission bi duma ma ko choisiral boppam moo bindaat ne raama rasulullahi min ilahi kaw nii xaddimu wa abdillahi nee na yonent bi moo raama moo sàkku rasulullahi ndawlu yàlla bi min ilahi ca buur ba kaw nii sama nag xaddimu hu ma war koo liggéey wa abdillahi waaye jàmm yàlla bu set nit boo ko jàppee simple personne am nga problème bu xol mm-hmm. te nag gumba yi sax gisuñu leeru jant te bu tàngee ñëpp ñëpp ñu tàng na dëgg la nangul ko jot ma allah nangul seigne touba jot na seigne Fallu dégg nañu kaddu bi leg seigne Fallu tarikhu magal gi ngir xana teugunu teub rek evenement gi am ni yo wa fi mbiri jaar nak fi jaaré ba tollu fi mhm. sëriñ bi bi mu ñibbisee. Mhm. ku liggéey ba fin du mois. Mhm. da ngay dem rang jël sa salaire. deug la moom ko joxé salaire am dafa di ñew leen ngeen santalé ma yalla. ci salaire bi. wa mom yow xana da danga da liggéey ba ñu fay la maanaam sa ñàkk la. waaw léegi nag maanaam ñaq gi mhm. da ko bëgg a bokkal mindaafoon yi dama lay dellusiwaat tuuti ca la ma la waxoon ne la ku nduróog yàlla yëf la la yàlla lépp moo ko defal boppam leen rek la woote mhm. suñ tubaab lépp moo ko defal boppam leen rek la woote <laughs> yàlla bi muy tabax asamaan si ak suuf si kenn fekk suñu ko ci nee na innaa xalaqna samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin summa stawaa ala al arsh defar na ab nag al asamaan ak suuf ci juróom-ñaari fan bi ma noppee ma installé wu ci arsh waaye bu ñu la waxee ni la inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla ne na inna allaha naka ñun yàlla wa malaikatahu ak sunuy soldaar sunuy malayka yusalluuna ñoo ngi julli ala nabi ci yonente bi alayhi salaam kon nag yaa ayyuha alladina amanu ee yéen mindaafoon yi gëm kaay leen ngeen jàppale ma sallu ala alayhi des ni man yàllaa woote pour ñu santale ko yonent bi ni mag boo ko ci defee benn mm-hmm. man yàlla ma fay la fukk boo defee fukk ma fay la téeméer boo defee téeméer ma fay junni xanaa moo woote loolu ni naan ko santale yonent bi mm-hmm. ak cantam doyu ci sa ko moom yàlla dégg lam ci jublu moom moo ko xam dëgg la Sëriñ Tuubaa lépp amul épreuve boo xamante ne bi muy dem am na ko gàddul satala du kenn ah, ah. amul épreuve boo xamante ni sëñ Tuubaa ba mu koy passé am na ku ko yenn loon ay bagaasam wala ku ko jàppale woon ci nattu wala teg lii teg ko waaye yow sañ tubaa mm, sëñ Bay Jaxate nee na fa mu taxawoon di julli bu ne sami Allahu liman hamidahu amul taxaw ci ginnaaw naan ko rabbana wala ko xam gi rek la woote ni ñëw leen ngeen santale ma yàlla mm-hmm. te ni nag ku xamoon li ma di saa borom faggul bis bu ñëwatee loo amati nga miraas def ko ca mag ñi demoon noonu ba màggal gi tollu leen foo xamante ne sax ku ci am benn xar bu tabaski jotee doo ko rey da nga koy denc ba màggal nga màggalee ko Sëñ Tuubaa ci yenn waggaroon ko xam lii bis bi mm-hmm. moo ko woote nag aw feet mm-hmm. ñun gaa yi fii ñenn ñi nee nañ duñ dem waaye gaa yi ca kaw sax bis màggal bu jotee ñëpp xam ne ka gañe woon mom lañuy magala tay tey hmm. fet la ci aljanna magga safaru bam sa li rabbal bariyati badan adhab qabl man khalaw nii bi dadan fet la ra ju toll ni nak kan moko hmm. def ci mim rew te genno bakku ànd ak sa njaboot waaye nga wo julit yep xam nga lu ko waral hmm. la mu ak yalla da bari ta li ne fi mom bari ta du jeex indi suñ tubaab waaw nee na yonent bi laay liggéeyal mu may fay di ma fay ba fay ma ba ni ma jeexal naa kaa ma yóbbu la ci kërul dul jeexle mm. ba ma demee ca moom mun ma wax ma loo mës ta wax kenn ma defal la lu mu mës ta defal kenn suñ tubaab wax ko lu mu ko mës ta wax kenn suñ borom defal ko lu mu mës ta defal kenn ñett yi mm. ku ko wax ko dul suñ tubaab ñu bàyyi suñ tubaab jàpp la ko ko wax ku dul sëñ Tuubaa waaw ñu bàyyi sëñ Tuubaa jàppale waaw ñett yàlla waaw benn teel sa loxo benn malaka nii maaliku kullu jaami wa kullu masjidun minal mu jaami moo ko bind muy yàlla mii seen buur mhm. am na ko yow suba jàng fàcc xam ne maliki yow mit diin mhm. moom mhm. maaliku mooma leen mooma ci yàlla nee na maaliku mooma moom le kullu jaami mindaa foofu yëpp wa kullu masjidun ak jàkka yeen jumaa yi minal mu jaami ak lañ fay jàmm muy benn neel ñaar ñaar zimaamil wara asri ladallahi fi jaddin wa ma rumtuhu min malikin qaada bil anin nosu min daa foon yëpp ene zimaamil wara asri nosu min daa foon yëpp ladallahi tukki na ca yàlla fii yaddin ba ci samay loxo man ahmadu nee na wa ma rumtuhu min malikin qaada bil anin lii wa gën a xorom lépp ku nangu ak ku bañ qaada di nga ommat bil anin ba ci man ahmadu eh waay kon de fii la gars yi di sañ bokkul ak ki nga xamante ni day tëju ci néeg ñu naan nañ ko jàngal kaamilu alquran nañ ko nangam ak sàngam nee na ñetteel bi ñetteel bi wa masalul munkiri wa nakiri jawabuhum indi la tunkiri muy duma ma sëriñ buy gungee ba ci buntu bàmmeel ni dénk naa ko yàlla ah. bu muri yëpp faatondoo nee na ci benn saax ah. maram boo ñëpp ci benn saax ndeysaan ak nduróog yàlla <laughs> nee na wa masalul munkiri ah. gaa yëpp ñi jàng tam xam-xam yowmal ragalun sawara hmm. xam nga lu mat a ragal hmm. tëdaayu bàmmeel te suñ tubaab boo demee ci ci ci axlu saman saxoon nag neen suxraa mamaatu kulli insaanin tëdaay tëdaay yàgg la ne tudd 1901 ba léegi jógaguñu nii tudd xamaguñu kañ la ñuy jóg lii wa mat a bàyyi xel hmm. nee na seen laaj ca biir bàmmeel masalul munkir wa nakiir question yi leen fay posé nee na laaju munkir ak nakiir yéen ñi aju ci man nee na bu leen tiit n'ayez pas peur jawaabuhum seen tontu maa ko yor laa tunkiri kenn du leen yey ci Dan da nga ko tëkkale kenn dégg lii du suñuy wax de moom moo ko wax ba fi wallaay soosaluñ ko macha allah sëñ Fallou jàppandal barki démb rek am na ko ma laaj ndax yeneen tibeeg sëñ Tuubaa ku gën ku la laaj loolu waaw man ko man ko kenn sañ ta kenn gën sa baay fu mu toll nii su gën sa baay nga mer wallaay dëgg la bu sa baay bonoon sax ba yées si baay wallaay dëgg loolu rek dina am tout luma ci tekkale ñu bàyyi xel ni yonent bi njaatigéb sëñ Tuubaa la hmm njaatigéb mo wax ni ana wasilati huwa rasul sama serigne man señtu ba huwa rasul mo yonent bi kon jarul di tëkkale jarul dendale neena man shakka fi kawni ibn abdullah muhammadun nurul wa rafa allah ina loola sax sikki sàkka googu sax garaawul ndax yéeféer yàlla yee ko moom waaye ñun jullit yi Sëñ Tuubaa nee na man son na yéen murid yi yéen jullit yi xaadar tijaan laay nee na man son na ku njort annal muntaqaa naka yonent bi alayhi salaam mislun waraa mel na ni benn mbindaafoon fa huwa xumrun kooko dof la te Sëñ Tuubaa du dof ndax dof du sant te Sëñ Tuubaa ci ashkuruhu wa qaala li abdaala kama kafa min xar boobal jidaala ay xamdal li musri jona waddaay xamdal li rabbi xaafiri sana cantakoon la moom sant rek lay def ndeysaan te kuy ku ku dof du sant ku dof du gërëm kon ñiy njort ni sëñ Tuubaa dañ koy gam-gam leeg yonent bi tontu gi c'est clair et net moom nee na ana wasilati huwa rasulu yonent bi sama wasila kon taal bi bu di sëñ Tuubaa moo mën yonent bi loolu moom la concerné keneen ku ko xalaatee nee na yow la concerné waaye sëñ Tuubaa nee na ana wasilati huwa rasulu dëgg la xam naa ni ki ki ki ki ki dégg wax ji moom dana xam moom li may wax macha allah sëñ Fallou jàppandal moom loolu ànd ak tey ci safar ak ci Talibe TV léegi sëñ Fallou macha allah dégg na lu nga wax taarixu safar wax tamit li waral tukki bi ñu yóbbu woon sëriñ bi léegi nag xëy dañuy duggaat ci deuxième partie bi deuxième partie bi muy dañu bëgg waxtaanee kan mooy sëñ Fallou. mën naa bañ sol sori. Hmm. ab jaamub sëriñ Touba rekk la ak Cheikh Ibrahima Fall. moom sëñ Fallou. doon géwal tey Baye Fall. <laughs> kon géwél géew a ci neexoon doon géwél tey Baye Fall ndeysaan solos nag xam sëñ Fallu yaakaar naa loolu doy na ci dëkk ndar mm-hmm. juddoo ndar yaroo ndar màggee ndar mm-hmm. jàngee daara sëñ Moxsin voilà mokkale alxuraan ci ku ñu wax Pape Moxsin Diop mm-hmm. maa ngi koy nuyuwaale sëñ sëriñ bu baax boobee euh, maanaam léeg-léeg sax am ñox sëñ Fallu daa bëgg bu mbubb yi may jàng daara sama sëriñ daa mën a sañse ki ma jàngal alxuraan Alaaji ndeysaan dëgg la turandoom nag bu ñu wax Pape Moxsin Diop hmm. doomu Zeynu Abidin ci loxoom laa mokkale alxuraan ci moom laay imité ni may solo damaa yàggoon a bëgg am dara ba teel a ñëw garaam bu ndax moom ci maa ngi koy nuyu te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko hmm. ak mboolem ku ma bokkaloon daara rek hmm. euh, xam naa ne su ma tuddee ñoom mbooseet président ñoom Pape Moxsin ak Badara Fall ak bàyyi na sa gaa yëpp rek Euh, kii mooy sëñ Fallou bu fekkee ne am na leneen lu ci bëgg a xam it. waaw ñàkk man na. waaw bëggoon nañu xam it sëñ Fallou lu ko def murid li koy judd. Mhm. man sama waajur murid la. Mhm. taalibe bi sëñ Ousmane Mbacké Noreyni la. bokkoon ci ñi taxaw doon yëkkatil sëñ Ousmane Mbacké Noreyni xasida mhm. daan na ko bakk di ko jiñ am lu bari ci Noreyni. waaw. Euh, sama waajur bu jigéen nettali na ma ni ma. faw nga am dara daru, ndax yag na ma laa boot di tek man ak seigne Ousmane te yel ma ngi nuyuwaale it wax deug yalla njabot borom daru gépp waaw nak mam Thierno Mbacke hmm. sama serigne sama xarit borom daru sanit, it sama serigne sama xarit borom bax Mbacke ma ngi siar ñep rek ma nga non léegi seigne seigne Fall mom bëgg na lu xamit euh, tay lan moy projet ba tax ci yoonu murid Serigne Fallou lan lay waajal. yaa ngi may soog a posé question bu ma neex nag. parce que li nga may laaj ci sama bopp lépp man intéressé wu ma xam nga lu ma hmm. lii nga ma laaj. sama projet ci yoonu Mouride. <laughs> Euh, c'est de montrer. Hmm. un Baye Fall modèle. un Baye Fall damaa tarbiyu sama sëriñ ba mu gërëm ma. yëkkati kaala teg ci sama los ni ma bis ni tey yàlla gërëm na la. est-ce que yonent bi gërëm na la. rangoñam dal ci dënnam daal lii ma def yàllaa ma ko digal ma def ko mbooloo mu bàyyi daal yóbbu leen ko mu dem këram am ñum ma booleel nii naa dem bu ñu demee na ngeen ko tegal seize fàllu ma woon ak mii ngeen di gis du bokk moo ni ma dama laa préparé pour nga doon model moo tax sama mission c'est un modèle Baye Fall c'est de montrer un Baye model boo dee dégg Baye Fall nag mhm. moy caricature gi nu jox Baye Fall mooy ñàkkum jàng ñakum xam sol sa lu la neex wax sa lu la neex dem fu la neex nekk ci la la neex yoy la ñu jox Baye Fall waaw je suis venu nak man pour montrer que ni manam on est diamétralement opposé à cela ni Baye Fall ak li ñu jàpp wuute na sëriñ bi moo ne ma ñett ku génne ci yoon bi sa bopp nga nekk. ñett. Mhm. mu yéen. non bi ci jiitu mooy yilif sa bopp te nit bu yilifee boppam ci lu ko neex rek lay nekk nafsam lay topp. dëgg la moom la alxuraan di wax ni inna nafsa la amaaratun bis suu. Mhm. ba mu yàgg mu naan nafsun mutma ak nafsun lawwaama. Mhm. nee na boo xasee ba yilif sa bopp. àddunaa lay gën seytaane. bànneex. sëñ tubaa tënkal la loolu yëpp li laa tastari dunia bi uxra ya fata man baa an nuuran bi duja fa sa yen dam munuma ñaareel bi nit bu fonkulee boppam ku mu ni fonk na ko wax ko dëgg da koy def waaw te da nga ciy gis ku dox ci mbedd mi hmm. jàppe boppam aw Baay Faal bu bokk ci yoon wi hmm. jàppe boppam koo xam te alalu Cheikh Ibrahima Fall la hmm. nit ñi nangul ko ko yek ka jap kajab kajab yek yoyu mas nga gis nataalu Cheikh Ibrahima Fall ba mu takkee ay kajab kajab ak ay gànjar mas nga koo gis mas ngaa romb benn sëtu Cheikh Ibrahima Fall ci incorrect civisme hmm. la nu donn ci deret ngor la nu ci deret njàmbaar la nu donn ci seenu maam Cheikh Ibrahima était trop civilisé wax naa ko ci ay waxtaan yu bari ba xala daan sol jël palmaan teg ci kawam sol ay tàmbe sembe njool ca kaw di mesure deux mètres quatre ñuul bay briller fees dell ak yàlla neen damaa topp tànku yàlla ba mu dugg kër sëñ Tuubaa kon bi muy ñëw am na yàlla ndax kuy topp tànkub yàlla xam nga yàlla macha allah léegi sëñ Fall waaye dama la jox ñetteel bi ay ca ñett ñetteel bi mu ne ñetteel bi ku yeewul day neex a nax kuy nelaw mu ne yoon wii ñu nekk yoonu xëlu ñëw la waaye xeloo la ciy tax a jëriñu القرآن صرف لي سارعوا إلى مغفرة من ربكم ذكنت لهم تيوي فسابقوا نصر أطفال يبصروا بعدما سقط قصد آخر الزمان سنجاد يخني سارعوا إلى الخيرات دولة ذكنت يوي مولد أنا ذكنت داو أنا ما يخلون غير من جرمي دقل لو لم ستانك لم سلوس لو سنبيخ نلقى واو فال لأن لم تانكي لم لوس يواجهين تالو خلبي su xel mi dañee si ñun rek ñu doon eh, ay eh, ñu noppee doon ay nit. Mm-hmm. doon ay mala. Mm-hmm. su maradadnaahu asfala saafiliin daal ñu dikkal. Mm-hmm. ñett yi mooy critère doomi aadama bu dañee ci yow doonu tool li nga mën doon. te pour nga doon Baay Faal faaw nga am contraire bu ñett yi yëpp. pour nga nekk Baay léegi seen wàllu bi ñuy tëjee laaj bi mooy ban xalifa la gën a marqué ci yoon bi. Sëriñ Saalixu. lu tax loolu. moom laa fekkee te xam naa ne bu àdduna guddee tànk. sama doom bu màggee Cheikh Ibra hmm. mbaa Yaasin sunu màggee naa leen wax ne leen fekkee woon naa njabootu sëriñ Touba gis naa doomu sëriñ Touba ñu jëgg ma ci kàddu yi sax gis naa leerub sëriñ Touba loolu ni ma marqué dara gënu ma ko marqué su ma toogee ku naan fekkee na jamono sëñ Fallou sama xol bi ni muy def ñaar laa xam ne bëggoon naa fekkee seenub jamono hmm. sëñ Ousmane Mbacke Noreyni ak sëriñ Fallou seeni histoire sama xol bi la ne te musuma leena gis Serigne Saliou ma gëna marqué benen bi bima ma jàngee ba gëna xam. Mhm. tuuti mhm. di nap nabi mhm. dama gis histoire bu ma neex ci Serigne Saliou. xam nga nit ñi dañuy wax ni neena na dem teqalikoog yéen. Hmm. su suma leen jiitoon na leen nek hmm. bu ngeen dëppulee ma depp jëleen way duma ma teqalikoog yéen. Hmm. Serigne Fallou da netali ni liggéeyu juma ji Serigne Saliou jox nako ci lo xamanteni buñ ko ci dindee li ëpp ci jumaa ji màbb ca joojee jamono ñu laaj ko lan la la jox mu ne jox na ma ñetti million ca booba jamono ñuy liggéey jumaa ji kon addiya tuuti woon na nee na mu jox ko benn benn million bi ni ko addiya bii ma lay jox addiya sëñ tubaala la ko am jom la te bëgg yàlla bu ko liggéey bi fekkoon fii kenn du ko ci mën dëgg la maa ko joxeel million bi daal ni ko ñaareel million bii addiya man saa yoo ko faat jaxate la maa ko def ci liggéey sëñ Tuubaa gii ndax bëgguma kenn mën ma ci ñi ko ñetteelu million bi maa ko joxel murid yi war a ñëw ëllëg duñ fekk liggéey jumaa ji ma bëggoon seen ñaq dem ci ndimbal gii nu sëñ Saliou defal kenn defal ma ko wallaay dëgg la moo tax koo xool xolam sëñ Saliou nga ci fekk moo ma gën a marqué lu yàlla bind te it moo ni sunub sëriñ sërif mu ni ko faal mu ni ko waxuma la yow waxuma say taalibe waaye say wëllëree taalibe naa ko teg ci loxoy borom jumaa ji loolu de leer te ñam ko waxoon ñoo ngi dund ba léegi waaye bu fayee fii di dégg. dëgg sëñ daa ngi dund ba léegi. sëriñ Saliou daal moom a gën a marqué ci lépp. macha allah. as-saalihu allasi yukammilu al-amal. ci yàlla. salli ala saalihi wa huwa al-muslihu. as-saadiqu sidqun salaatan tuslihu. ci yàlla. mooy sëriñ Saliou daal. mooy sëriñ Saliou. waaw. mooy sëriñ Saliou waaye kii toog mooy sëriñ Fallou jàppandal ñu àndoon ak moom tey ci émission safar ak. moom suñ fan dégg nañu macha allah kaddu bi ni mu leeree ak tamit ni ni ma ci gën a marqué mooy ni mu tegoo ci xam-xam te tamit ak am cohérence suñ fan sa kaddu bu mu looy soññ numéro bi. xanaa ak sant. Hmm. te di leen soññ ñu wàcc internet beeg commentaire beeg saagante gi lu bàyyi bëggul ku ko wax baayam. Hmm. bu mu ko wax bàyyi jàmbur. ñaareel bi xanaa ak sant euh, mbokki taalibe bi yëpp. tàmbale ci sant gi Mouhamadul Amin mm-hmm. nga xamante tay ji fi ñu nekk di fi defee émission bi hmm mu suma soppe nga xamante manam ci télé rek la ma gis bëgg ma nga gu nekk mu defal mako ko ma koy sante di sant it sëñ Moussa Diagne nga mm-hmm. xamante mom suma rak la mm-hmm. suma dom la suma xarit la suma talibé la suma lepp la xam ni manam ku ma gis-gis ko dëgg maa koy sante bu baax di sant it sama kuréel yëpp waa yoonu ndam maa ci seppi kenn rek muy jëriñ Mouhamadou nga xam ne bi bii ma sol moo ma ko gar mbaasu ma ko sama tailleur bu baax boobu noonu euh, masay xar ma moo aksa def nii ak sama yeneen tailleur yi Jibril ak ñoom ñëpp maa ngi di sant ndax su sol yëpp damay sonn di sant it euh, bu baax baax baax borom badar gi rek di leen ñaanal Sampur ak taysiir mm-hmm. euh, sans pour autant d'oublier sama benen taw bu góor maanaam Aimé ak njabootu sax alaaj Jóob yëpp ku lim damay juum su ma tuddee Père Laay rek. jëriñ hmm. Seex Njaay tudd naa ñu si ñëpp. Hmm. noonee daal fa laay wàccee kàddu yi xanaa sant leen yéen man Talibe TV laa bokk. ndeysaan ñiy déglu sama waxtaan yàgg nañu dégg ni man aw ma yitte ci doon sëriñ. dëgg la baay Fall laay doon ba yomal xiyaam. te Baye Fall nag mooy Talibe. Hmm. te nag amul bu gën a kawe Talibe. xam naa ne beneen jotaay danañ waxtaanee luy Talibe. danañ ko waxtaanee bu ne xel bu ne waxtaanee yar. waaw danañ waxtaanee. ak taalibe mm-hmm. xam ni maanaam daraja ju kawe la moom taalibe tey mm-hmm. daraja mm-hmm. ma ciy mosal rek mooy bu amoon garab gu gën a féete kaw suñ fàll du ko jaay dundee wasalaam minallaahi aleykum jërëjëfati sëriñ Touba <laughs> macha allah yaakaar naa xol ñëpp sedd na li kii mooy suñ lu jàppandal leen fàttali nag ni buñ ko àttee ci laxasaay yi ngir it kilifa la yàlla dogal na ni mbooloo bu bëri topp ko te yaakaar ko xëy na dégg nga ni ni mu ko waxee ni taalibe la bëgg a nekk waaye it <laughs> taalibe par par par grade la man sama taalibe ak taalibe bi yaakaar naa am na wute lii moo nekkoon Talibé TV ci safar ak ngeen àndoon ak cuun bëgg bam mu dalal ceeg suñu fàllu jàppandal di leen wax yi am na yeneen yeneen yeneen yeneen ak yeneen yuy ñëw kon di leen wax ngeen daw gaaw abonné ji te bës bu ko ngeen jot suñu yeneen vidéo وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سلام الذي في كل لسان وفي سفر